واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم مكي في التويب نيغلاندي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت الله سبحانه وتعالى دي جول جونتي صلى الله عليه واله وسلم آه، دي ام بكتب بنن يون تاو فيتي بقاعة قلنا بني يلا ما يهداو يدفون كفي داولو يلا ما يات نيو فك كورن منك النسخة الثانية كون لولو جرنا سنتي يلا سبحانه وتعالى دي ñaanal ñi nga xamee ne ñoo ñu ñaanal leen yàlla yàlla dëgëral leen yàlla kàttanal leen su aju woon ci man dama naan nañu tëj programme bi ndax euh, li ma fi jànge tey ci wàllu ilalul xadis am na njëriñ ci man lool te suñu sëriñ al ustaad ngom jox ñu dars boobu léegi mu nekk cours magistral ci xam-xam bi gën a sew ci xam-xam yi waaye bi gën a sew encore ci biiru xam-xamu xadis muy ilal ilmul ilal kon ustaad yal na la yàlla dëgëral yal na la yàlla dooleel xam naa il faut ma jël sama samay kàggu ñëw fekk la fi nga nekk ndeysaan euh, nga am yu bari yoo ma yoo ma yoo ma yoo ma joxaat kon pàcc biñ ñu jagleel ci waxtaan wi mooy السنة النبوية ومكانتها من حيث الاحتجاج من ما تصرف توتي عنوان به موي سنة يونتبي صلى الله wa وآله وسلم واتشوايم ci nuñ ko war a jële di ko def tegtalukaay comme ni alquran nekkee tegtalukaay sunna yonente bi tamit naka la nekke momit di tektalu kay nga xamné dang ci wara wéru comme ni ngay wéru ci alquran bahth bi nak ma wéru ci kulliyan danaka ci benn bahth bu am solo boo xam ne bi benn soxna moo ko bind ak doctora ruqiya bint nasrullah moo nekk bahth bu am solo ma wéeru ci moom di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla defal ko yiw mi ngi liggéey liggéey bu mag ci wàllu xadis ci yeneen kuréel ay kuréelu jigéen yu nekk ci almamlaka al arabia saudia yàlla na ko yàlla dooleel kon li nga xamee ne mooy sunna yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liy wàccuwaayam ak liy wane ne dellukaay la xujja la lu bëri la ndax ñun ñëpp réere wuñu mbir ne sunna yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cosaan la bu dëgër ci lislaam ndax moom moo ñëw ngir leeral cosaan bu jëkk bi muy alquranul karim kon mabxas bu jëkk bi mooy indi ay tegtal yuy wone ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi'lan xujja la dañ ci war a tegtaloo dañ ci war a wéeru الإمام الشافعي دفع دون وخنان بوي وتال sunna ne سنة la jarul ngay sori jarul ngay dem fu sori نانا القرآن تبا بموي ونانا حسن حجلا ونا القرآن الكتاب شهد بالسنة بالاعتبار لأن القرآن موساد السنة لنورا كونسيدرا لنورا تكتولولا يعني الإمام الشافعي مولا وخلول القرآن شهد للسنة بالاعتبار كنت لن وقتان لن نتي آيين خميني mooy saxal loolu ak lenn ci ay ahadis yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci boppam moo ko wax luy saxal loolu waaye ci waxi borom xam-xam yi rawatina ngir yi nga xamee ne moom la ñuy ñu bëri topp ci dëkk julit ñi ñoom lan mooy seen wax ci tegtaloo sunna buñ ci paree tamit ñu wax xel ci bopam rek naka la mëna nango lool naka la xel mëna nango lool kon dañuy wax ci alquran sunna al ijma ak naka la aql tamit mëna nango lool bo ñewé ci patch bu jëk bi moy alquranul karim alquranul karim fess na ak ay aya yo xamné yi dafa ñëw ngir feddeli lool wane na sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam hujjala doy na rek buur bi di wax subhanahu wa taala ci alquranul karim wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuxa loolu rek doyoon na yàlla ci boppam moo wax ci alquranul karim ci lu leer loo xam ne lii laajul tawil sama yonent bi di muhammad alayhi salatu wassalaam du waxe bànneexu bakkanam ma yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuxa lépp lu génn ci moom waxyu la boo xam ne bii dañ ko ko waxyu kon loolu rek doyoon na ñu xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam waxam xujja la jëfam xujja la ndigleem xujja la tereem xujja la loolu moo tax abul baqa nga xam ne borom xam-xam bu mag la bi mu jàngee aaya bi dafa wax ne inna alqur'ana haditha yattaxidaani fi kawnihima waxyan munazzalan بدليل هذه الآية بدليل هذه الآية أبو البقاء من القرآن أك سنة نيوم نيار نيويم تي سينوك نك وحي كي سينوك نك وحي غو خمني غي يالا كو واتي نداختي لي تكتال من موي آية بي يالا واخ وما ينطق عن الهوى من لولو موكي موتي تكتال العلامة ابن حزم ngeen xam ko borom al muhalla dafay wax ne moom tamit ci aaya bi saxa lana bil ayati sabiqa an al wahya yanqasimu ila qismayn axadihima وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن nee na wax yu ñaari wax yu ñu am benn wax yu bi mooy wax yu boo xam ne bi dañ koy jàng wax yu boo xam ne bi dañ koo nose max wax yu boo xam ne bi niñ ko nose sax ijaaz la mooy dafa lottaloo nit mu ne boobu mooy alquranul karim mu ne wa thaani waxyun manquulun غير مؤلف ولا معجز ولا متلو لكنه مقروء ومنقول إلينا am wax yu boo xam ne bi bokkul ak bi ñu nose bokkul ak bi nga xamee ne dafa am ijaaz boobu alquran la waaye nag bu ñuy jàngale di ko tuxalante di ko jële ci yonent bi di ko indi ci ñun ba ñu jot si mu ne moom mooy وهو الخبر الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ما خبر يجوك يونتبي يعني عليه الصلاة والسلام وهو المبين عن الله عز وجل مراده هنا من لولو موي ليغا خامي نه موي ليرال واخ يالا بيغا خامي نه موم موي القران كون دنج سي ديغي نه كون نياري واخ ñu am كون ñi wax wahyani jumuñu ndax yalla ci bopam mako deugal wa ma yantiqu hawa إن هو إلا وحي يوحى كن نياري وحي يوم القرآن أكسنة بتي الله سبحانه وتعالى من وقت القرآن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يا الله من يوحي أنت عليه الصلاة والسلام واتنا ينشيو تيري أكلوني وقت الحكمة loolu mooy shahid bi wàcc nañ ci yow téere muy alquran ñu wàcc ci yow alxikma fa athbata subhanahu wa taala yàlla xamle fii mu saxal fii ne aaya bi nga xamee ne mooy alkitaab bokkul ak xikma ndeke ndax bu fekkoon ne benn la jarul mu koy toftalante waaye dafa teqalikoo dafa ne wàcc naa ci yow alquran muy sama téere bi والحكمه شي لب لو خامني لي ديبو نانتي السلف الصالح الحكمه بابو ماي السنه النبويه الشريفه موي سنه بي نيو غير ليرال واخو يونتي بي واخو يالا سبحانه وتعالى موي القران الكريم كون يالا واتي غيم واتي القران واتي كو حكمه لولا تكتال لا حكمه بي شي بوبام dañ ko war a tegtaloo ngëm ngom comme ni ñuy tegtaloo alquran bi nga xamee ne waxu yàlla la ndaxte xikma bi moo ñëw ngir leeral waxu yàlla bi subhanahu wa taala ci noonu la ñuy xamee ndeke leeral lu yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy pàcc bi nga xamee ne moo ñëw ngir mottali alquranul karim moo ñëw ngir mottali alquranul karim kon loolu bu saxee bu saxee ne wax yu bi ñaar la benn bi mooy waxu yàlla benn bi mooy bi nga xamee ne yonent bi moom lay leeralal alquranul karim kon dafay nekk lu évident sunna nekk loo xam ne dañ koy tegtaloo day nekk shay an xatmiya nga xam ne sunna day nekk nag léegi loo xam ne dañ ko war a tegtaloo ndax boo ne duñ ko tegtaloo rek yaa ngi xaaj yaa ngi jël benn xaaj ci diine teg ko ko te ne boo ci kenn wéeru te xaaj boobu xaaj bu am solo la ndax moom moo ñëw ngir leeral li nga xamee ne mooy waxu yàlla di alquranul karim moo tax yu bëri ñëw ci alquran di digle ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla wax ci alquran fa aminu billahi wa rasulihi fa aminu billahi wa rasulihi النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يالا موي نغن گم يوننتي بي يالا گم يوننتي بي گم يالا گم يوننتي بي كون ني گاي گمه يالا يوننتي بي صلى الله عليه واله وسلم موم گاي گم واخ ني گاي گمه يالا موتاخ مو بولي لين عليه الصلاه والسلام نده منو يو بوگ گم يالا رك ني گمنا يالا ديدت yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi yàlla yónni moom mooy ñëw ne la nii ngay gëme yàlla nii ngay toppe yàlla nii lii la yàlla bëgg lii la yàlla tere loolu mooy sunna bi kon sunna xujja la boo xam ne bii kenn mënu koo taqale ak alquranul karim ay yi bëri na yàlla mi ngi wax ci alquran maa kaana allahu li yadara almuminina ala ma antum alayh xatta yamiida alxabitha min altayib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله ورسله كون شاهد موي گم لن يالا گم يوننت يالا يي لان موي سانسو گم يوننت يالا يي سانسو گم يوننت يالا يي موي يوننت يالا يي ньо ньо دي لا واخ لي يالا بك شيو كسه kon seen wax soo ko tegee doo xamante lu yàlla bëgg ci yow seen wax boo ko ginnaawalee doo xamante lu yàlla ji bëgg ci yow kon gëm yonent yi sens bi mu am mooy lépp luñ la wax nga def ko lu la tere nga bàyyi ko ndax lan ndax seen wax yàlla leen ko waxloo seenuk tere yàlla leen ko tereloo kon loolu ay aaya la yu dul jeex ci alquran yoo xam ne yii yàlla day wax topp la yonent moom kenn yi yàlla day wax top len yonenti nga xamne yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ci dugg an tariq al awla ndax moom mooy xaatamul anbiya wa rusul te yonenti yep sedel nañ ko bala ñoo ñëw ne yonenti bi mom moy yonenti akhir zaman yàlla mi ngi wax batay ci lo xamne daf ko concerner mom rek alayhi salatu wassalam qul atiu allaha wa rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibu kafirin wax leen ñu topp yàlla ñu topp yonent bii e buñ ko wone ginnaaw nag yàlla du ànd ak ku weddi kon gis nga foofu tamit ba tey mi ngi fëddeli ni ñuy war a topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te topp ko wax naa la mooy topp ay waxam mooy topp sunnam mooy bàyyi ay tereem ci lépp loo xam ne li wér na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon sunna yonent bi kenn mënu koo tàqale ak alquran sunna yonent bi ken munul wax doko ko tegtaloo damay yem ci alquran rek waye duma ma sunna lolou kuko wax danaka yow mi wax ne alquran ngay sukkandiku alquran ci bopam moy xex ak yow ndax mom moy weddi li nga nek moo lay wax ne li nga nek ni wirul yenn say yàlla feddeli top ko yonent gi ci ay bu melni bi di ñëw yàlla fi mu ne yaa ayuha amanu atiu allaha واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي ني گم توپ يلا يالا گن توپ يوننت بي فلي يلا وخون توپ لن يالا اك يوننت بي ودافا وون اند رك واو العطف موي كونجونكسيون دو كوردوناسيون مي في دافا ني اطيعوا الله واطيعوا الرسول دافا ام سيو سيو بنك فوفو توپ يلا يالا mu répété aamil bi amil bi mooy fi'l mooy mooy baat bi nga xamee ne moom mooy déterminer li ci topp mu répété aamil bi muy wa atiu rasula ngeen topp tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi dégg ci ne topp leen yàlla ci lépp lu mu leen wax ci alquran te yonent rasula اطيعوا نعم، بي تخنو رابيتو نغن توب تاميت يونتي صلى الله عليه واله وسلم تي لب لو خامني لي موميت واخ نكو دونت غيس لين كو تي القران واي وخم باتي لا تي وحيو ميم بوكو غيسو تي القران موم دينا ام استقلاليه بو خامني بي يالا مكو كو جوخ موي واخ غاي جيف ولا موي تري غاي باي تي دوكو فك تي القران خانا تي ام بيسانس لي ني واخ ام بيسانس واي دوكو غيس ني تي القران kon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko may boobu daraja kon moo tax aamil bi dellu si fi mu répété ko wa atiyaw te xam ngeen ne waawul atfi xuruful atfi yi dafa bëri borom xam-xam yi dañuy wax al atfu bil waaw li muy firndeel mooy mutlaqul musharaka wal jam mutlaqul musharaka wal jam loolu la waawul atfi di di di firi mun li ko teqaleeg yeneen xuruful atfi yi loolu mooy dafay waawul atfi bu ñu ko tegee diggante mbir ak li ci topp daf lay won ne li firndel firndeel li muy bi muy joxe moy ki mu jitu ak kim ci top kiñ ci kiñ ci tek muy conjonction bi ñom ñaar ño bokk yem ci li ñuy wax ño ci bokk yem fal waw tufidu hada mutlaq al ishtirak wal jam' kon batay yàlla mi ngi wax ci alquran wa ma arsalna min rasulin illa yuta li yuta wama arsalna min rasulin illa li yuta amul ben yonent bi mu mësa yónni lu dama bëgg ñu top ko top ko ci naka dang koy nga duma top lu ma wax wala duma bayyi lu ma téré wala wax bi mu fi bayyi muy sunna bu wër man duma ko tolo man dama yem ci alquran kesse yalla waxul lolu dafa ne nang ko top ndax yónniwuma yonent yi ngir ngeen top len ngeen roy len ci lépp lo xamne li def nañ ko mo xam wax la wala jëf la wa ma arsalna bir rasul illa li yuta kon min at tarura nga xamne kon sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faw ñukoy koy ndax te lolo soko ko rek rek naka dàq nga diine dàq nga diine ba tey yàlla mi ngi wax ci alquran wa aqimus salata واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والرسول لعلكم ترحمون mune na ngeen taxawal julli ngeen génne asaka waaye nag ngeen topp yonent bi wa atiu rasul ngeen topp yonent bi su ngeen bëggee yàlla yërëm leen kon kat ne nekk bañoo tegtaloo sunna wóorul ndax yàlla mi ngi ci gàll ne soo ko deful dafa mel ni génn nga ci yërmande yàlla ndax mi ngi jeexale aaya bi laallakum turxamoon bu fekkee ne bëgg ngeen yàlla yërëm leen ndeke yërmande yàlla mi ngi dëxañu ci nga déggal yonent bi alayhi salatu wassalam nga top sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ngay tegtaloo waxu yonent bi alayhi salatu wassalam loola dina ñëw ci walu xel ndax xel sax nangul ñu ne ki sa yonent la mo indi alquran ci mom la ko yàlla jaarale nga ne waw dina top ben patch waye mom waxam jarul ma koy tegtaloo dina ñëw ci ci kanam insha allahu taala bu fekkee ne waxtu bi may nañ ko bata yàlla ci ay yi nga xamé ne ci feddel yoyu ne sunna lu ñu wara top la ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne fa fa aminu billahi wa rasulihi nabiy al ummi alladhi yuminu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu laallakum tahtadun na ngeen gëm yàlla ngeen gëm yonentam bi yonent bi nga xamé ne mom gëm na yàlla gëm na li yàlla wax te ngeen roy ko te ngeen top ko bu fekkee ne bëgg ngeen jup ah ndeke kat jup mi ngi nekk ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam benen njub bo fi top njub fu lolou du njub ya ko tudde njub rek ya ko tudde njub rek dafa nek min babit tasmiyatil ladiri bis salim waye nekul njub الهدى دغ موي لي يونت بي اندي عليه الصلاه والسلام جيلكو سي الله سبحانه وتعالى كون موني نين كو توب موم يونت بي بو فكين دا نين بوغ جوب كون بو ني دوما توب سنه ولا سنه دوما كو تك تولو لب لو تك سي بلاص سنه ني دانكوي تك تولو ياغي تك سي بلاص الزيغ والضلال واينك تول نجوب لولا القران مكو واخ واي دو نيون نيوكو واخ سو بوغي نجوب دا ngay تك تولو واخ يونت بي صلى الله عليه واله وسلم batay li nga xamee dik na ci top yont bi ak tektolo sunnam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yo xamné yi bu ko tudul tamit dang ko cey dégg bu ko tudul tamit dang ko cey dégg ci ay ne sunna dañ ko wara tektolo yàlla mi wax su ci alquranul karim fala wa rabbik la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يالا من ماغي وات فلا وربك ماغي وات تي صبرهم لا يؤمنون سين گم دو من مات موك نيوم جوليت ني بني وخني اي غوري گم لاني لا يؤمنون اي لا يكمل ايمانهم سين گم دو من مات موك موك موك حتى يحكموك فيما شجر بينهم لودول لپ لو جار سين ديگنتي ني نيو نه لان لا سي يونت بي واخون lépp lu ñu bëgg def ñu laaj lan la ci yonent bi waxoon lu dox ci seen diggante ñu lan la ko yonent bi atte woon hatta yu fi ma shajara baynahum duñu ñu yem ci rek nan la ko yonent bi defé woon nan la ko waxé woon nan la ko atte woon dedet waye buñu leen waxé na yonent bi ni la ko defé woon ba pare summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt dañuy nangu naturellement li nga xamee ne moom la yonent bi wax alayhi salaatu wassalaam duñ ci indi sikk sàkk wala ñuy jema diingat lolu moy haraj xaraj du ñu am benn xaraj mimma qadayt wa yusallimu taslima ñu jébbal seen bop jébbalu ci wax yonent bi ci atte yonent bi ci tere yonent bi wala ci ndigle yonent bi alayhi salatu wassalam gis nga ay bi dang ci ciy dégg ne kon sunna yonent bi alayhi salatu wassalam min naaxiyat alxujjiya kenn du ko dàq lu dul koo xam ne kii da nga bëgg a xeex wala da nga ñàkk xam rek da nga ñàkk xam rek dina ñëw ci kanam insha allahu taala ba tey ci aay yi nga xamee ne dafay feddali loolu nga mënu cee dégg na sunna xujja la yàlla subhanahu wa taala ngi wax innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi wa ida kaanuu maahu ala amrin jaamicin lam yadhabuu xatta yastadinuuh aaya bi lu doy waar la ibnul qayim mu ngi ciy wax lu doy waar yàlla dafa ne jullit ñi innamal muminuuna jullit ñi mooy ñi nga xamee ne bu ñu nekkeek yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci benn mbir ñu nekk fii di def benn mbir yonent bi nekk ci seen biir mbir ma boole leen kenn du ci dem kenn du ci ñibbi كين دو ينغو لودول لو بوغا ديف دا غاي لاج نديغال يونت بي صلى الله عليه واله وسلم سو نك سي امرون جامع كين دو ديم كين دو داخ ليب ريك دا نكي ديغلو يونت بي سو بوغا ديلو سكر صاح دا نكوي تاغ عليه الصلاه والسلام العلامة ابن القيم دا فاي واخنا فاذا جعل من لوازم الايمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه لا يعرف يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه وهذا من تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة النبوية ابن القيم مكوخ نانا بو فكينا يلا دفني وخنا بو ني نيك يونت بي في تي كو سوف ني ديفاندو دارا دو ني نيمي دلو فن ميم سونو كير نيبي تانكا تاغوون كو نانا لي كون نك داي غنا ييتي داي غنا ييتي بو ني نيك سي مبرو دينه دونتي دوغال دونتي نياكا دوغال لودو دنج كوي دوغلو موم عليه الصلاه والسلام lu lu lu sew la comme que mbiru aduna rek lañu nek am luñ ciy doxal non lañ koy mëna waxé kenn du dem tank tag wo ko neena bo ñëwé nak ci diiné nga xamé né mbiru diiné la mahdo, neena fofit do fa top ben madhhab wala ben tayyar wala ben ruq ludul da ngay deglu yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam lu mu wax ci lola nga jël waxam nga jël sunnam nga natt ko ca bu dee dëppoon ak sunnaam nga xam ne loola lu mu lu mu digle la bu dëppoowul ak sunnaam alayhi salatu wasalaam nga xam ne loola waroo caa tabbi waroo caa tabbi kon ibnul qayim noonu la gisee aaya bi noonu la ko firee ci téere moom am bu solo boobu di ilaamul muwaqiin an rabbil alamin kon ba tey am ay ay ay alquran yoo xam yi daf ñuy woon ba léegi ci junju naka la ñu war a tegtaloo sunna yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax sunna ci boppam yàlla ci boppam moo ko sàmm comme ni mu sàmmee alquran li koy tegtale mooy yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun nun ñoo wàcc alquran muy ad dikr te nun ñoo koy sàmm te ak zikr buñ ko waxee ñëpp xam nañ ne mooy alquran waaye alquran lan moo koy leeral mooy sunna moo tax asalafu saalix dañu doon dégg ci baat bii ne boo ne inna nahnu nazalna dhikra dañ ci doon boole sunna dañu doon wax mooy alquran wa sunna ñoom ñaar ñooy ak zikr bi nga xamee ne moom la yàlla wàcce ci yonte bi alei salatu wasalaam moo war ñu ko jottali ndaxte li wax yàlla la kii mooy leeral waxu yàlla ñaar yooyu mënoo leen dissocier ñoom ñaar ñooy ànd wa yàlla moo wax lii kan moo ñu wax ne yàlla moo ko wax jibril moo ko indi ci yonte alayhi salatu wasalaam kan moo ñuy déggloo wax bi mooy yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñaar yooyu moo ab zikr kon yàlla ni muy sàmme alquran noonu lay sàmme ab zikr mu ngi nga xamee ne mooy as sunna ndaxte sunna tamit zikr la loolu la borom xam-xam yi asalafu salih noonu la ñu doon fiyee firee aaya bi te lépp loo xam ne la yàlla moo ne man maa koy sàmm xam nga ne loolu dana ñoŋ yàlla lépp lu mu ne man makoy sam lolou loolu dina kon sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li ci wér nga xamee ne moom la ñu war yàlla jamu gu leer insha allah taala yàlla makoy samal bopam li ci tektal moy aya bi motax seigne bri sank lim fi don wax ci xam-xam bu sew bobu motax yàlla tagat ay nit ñoo xam ne ñi ñoom seen yitt du dara luddul chambar waxi li ci wér ak li ci wérul mu al jahabida min al ulama yàlla len yàlla fay buñu démé ci hadith yi nag dafa bari hadith yi nga xamé ne moy tektalé ne yoon yonente bi alei salatu wasalaam waxam hujja la dafa bari doyna rek ñu jël hadithu abi najih as-sulami ngeen gën ko xam ci ala rabad ibn sahri radiallahu an hadith bobu nga xamé ne hadith bu xawa gudd la waye ñu dag jël ci rek dagat bi ñu soxla fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa rashidin تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ العرباد بن ساري رضي الله عنه موصله منك حديث وير رضي الله عنه من يونت من نفع عليكم بسنتي موي لا نجي سما سنة اوا موي جي سنة بي لان غا سي دغ اسكو مون غا موي جي سنة با بار دو واخني سنة حجه لا mun nga mooy ci sunna ba pare nga ne yow doo del doo doo doo doo tegtaloo sunna mënul nekk kon sunna jàpp ko mooy lépp looy def da ngay tegtaloo sunna lépp looy bàyyi dangay ngay tegtaloo sunna kon loolu la firi fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa irrachidin mu dellu indi baat boo xam ne bi dafay fëddali jàpp ga mu tamassaku bihi biha tamassaku biha jàppal ni sama sunna bu baax ngeen koy tegtaloo wa addu alayha bin nawajid kon li ngay matt ci sa dëgëj loolu bëggoo mu rëcc la de jàpp bi doyu la nii waaye danga jàpp ba pare xëcc tegaat ci bëñ bi matt loola ibaara yooyu mu jëfandikoo war na la wa yee bu baax ci ne ku bëggoon ñu sàmm waxam bi la ndaxte xam na waxam bi mooy leeral alquran te bés buñ ko bàyyee rek dañuy dem ci ñal yi bés bo fi baye waxam bi ali sattu salaatu wala nga sagane ko rek dara du teggu ci sa kanam dul ay ñal te bo ci tab bi rek amna shaytan bo xane bi taxaw na fa mu bijj la jëmale safara comme ni ko wax ci benen hadith sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon hadithu al irbad ibn sariya bo rek doyoon na waaye beneen xadis mi ngi ni bo xane bi momit hadith bu wér la hadithul miqdam ibnu ma'di karib al kindi المقدام ابن معدي كرب الكندي ده واخنا جل نشيان تبي صلى الله عليه وآله وسلم واخني واخ بوخنا ببدوي وارل نخته بكونا تي آتي بكونا تي ينغ خمينة ما يخاو ليجي تخمني كوار ما موخني كو دخل يفنى يشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يونت بنا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله المقدام ابن معدي كريم دفنا يبت يونت من يونت دفنا دينا أم jamono بين أي أي أي واي نيو daf مثال جي misaal من أي mel لنيو أي gaay نيو

liñu bay yépp alquran diglé nako ñak tek talo sunna alquran diglé nako kon liñu wax né fama wajadna fi min haramin حرمنا ومجنا وجرنا فيه من حل سحلنا لولو محد كذب لا نيكاي واخ واخ نيو دغ يونتي من انما حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل ما حرم الله تا يالا كات تا يونتي بن ليب لو خامن لي يونتي بي تري نكو موك لي يالا تري نيو يم كاب نيو يم كاب واخنا لكو فلي سي واو العطف بي ñoo yem képp xadis bi daanaka doy na xadisu abi rafiin radiallahu anhu doy na ndax xadisu abi rafiin lu mel ni rek lay wax yàlla bu ma dajeeg ñoo xam ne ñi ñoom ëllëg bu ñu ñëwee loo leen wax ci téere yàlla bi ñëwee la alquran doy nañu am na ñaar ñuy jaawale sax ñaari xadis yi waaye du benn bi xadis al miqdam la bi xadisu abi rafiin radiallahu anhu kon ba tey bokk na ci li nga xamee ne day tegtale ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dañ koy tegtaloo yonent bi ci boppam wax na ci xadiisu iftiraqil umma bi ma ñëwee ci ñun wala ci xeetam bi dafa ne wa sa taftariqu hadihi al umma ala thalathin wa sab'ina firqa thintani wa sab'una fi fi nnaar wa waxidatun fi ljanna biñ ko laajee kooku ñooñu nekk aljanna ñan lañu dafa ne ma ana alayhi wa ashabi riwaya yi bëri na ci xadisu al umma waaye bi bokk na ci yu gën a leer nee na suñu xeet wi dina taqalikoo juróom-ñaari kuréel ak ñett juróom-ñaar fukk ak ñett sintaani wa sabuuna minha fi nnaar sintaani wa sabuun juróom-ñaar fukk yeeg ñaar buñu moytuul safara moy seen kër wala mom lañu yeyo de na wax nonu bok naa waxe nonu bok safara lañu yeyo comme niko al allama usaymin waxe ci sharh al aqida tahawiyya ñu ne ko kan ñan ñoy texe ñi texe ñi mu ne benn kuréel rek mooy ñi nekk ci li ma nekk man ak sama saxaaba yi ñi nekk ci li ma nekk tey nii nii nii man ak sama saxaaba yi moo tax ñu lay wax alqurunul uwal ñooña nga xamee ne daf leen tuddal boppam sooy roy royal ñooñu borom xam-xam dafa doon wax iqtadu bi man qad maat ñooña nga xamee ne dund nañu ci jamono yu sell yooyu ba faatu roy leen ñooñu ndax yonte mooy leen wax xayru naasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum ndax ñooña wóor na ne lépp luy njaxas rek ñoom yàlla musaloon nañ ci kon boy delu delu ci njàngale yoy mom man rasula min ba'd ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin moy ñooñu ghayra sabilil mu'minin moy ñooñu batay amna hadith yo xamne mu nga ca dégg ne yonente sallallahu alayhi wasallam sunnam hujja xujja la waxam bi mu wax mom mom alayhi sallallahu alayhi wasallam nadhara allahu ra'an سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع نانا يالنا يالا ناتال كو خامني كي دغ نتيون واخ مو دغ نو واخ نون دارا نون محمد عليه الصلاه والسلام مو جيل واخ با جوتالي كو كينين غير كوكو جيرينيوكو مون نكو صاح جوتالي كو خامني كي فاف نام كوي دغ صاح موم دوكو دغ نون واي موم امنا يولو جوتالي كو lan moy njëri jotali gi lan moy fayda yi yonent bi di wax yal na yàlla natal yal na yàlla xewalal ko xamne ki kii lu mu dégg ma wax ko rek da koy jotali ñeneen lan moy fayda yi wax bi kon lamuy wax ak diko jëf dafa bëgg mu nekk tektal ñukoy roy ila qiyamis saa kon hadith bi dang ci deg dimnan ne yonent bi alayhi salatu wassalam sunnaam hujjala dañ ciy def ixtijaaj te mënul des ginnaaw ndax wax naa la boo ne ak dhikr as salafu saalix ñu ci bëri ci ñoom dañu ne mooy alquran ak sunna wala ñëpp sax loolu la ñuy wax kon boo jëlee sunna nga dagg ko nga ne damay dem ci alquran kese yow yaa ngi xaaj diine te benn xaaj bi nga yor bala ngaa dégg li ci nekk di nga sonn lool wala xanaa nga dégg ko yow nu mu la neexee waaye du déggin bi nga xamee ne moom la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam déggoon wala saxaaba yi ولا تابعوني مجنى فد اللي وخ بوتي تبان الحديث وخنا ليبلغ الشاهد منكم الغائبة كيف كتاو في ما يوخي لو دق ما وقو نفخي باكي ففتاو الدقكو لان بي دوغ شي حرف شي في المضارع بي دافكو افاده الامر ليبلغ نكنا امر لي يبلغ لون فدخلت اللام منك لي فعل امر kon dafa joxe ndigal nag fi ma toog di wax ni képp ku fi nekk li nga fi déggee fexeel ba keneen dégg kon njëriñ la li mu wax njëriñ la ñëpp ko war a jot alayhi salatu wasalaam kon sunnaam xujja la kenn du ko bàyyi ginnaaw ku ko bàyyi ginnaaw bàyyi nga ginnaaw diine daanaka wax na ko ci beneen waxin balligu anni walaw aaya balligu anni walaw aaya waxul walaw xadiis ndax walaw aaya bi da nga ciy dégg ne xadis mi ngi ci biir ndax xadis moo koy leeral munoo dégg benn aaya te yonente bi leeral lu ko sallallahu alayhi wa sallam munul nekk aaya boo fi dégg mu leer ci sa bopp rek yonente bi alayhi salatu wasalaam moo la ko leeralal moo tax tafsir bi gën mooy at tafsiru bil masuur ba tey ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث abu رافع جونج ني نكو سانك موي حديث المقدام بل al بن لا الامام الشافعي la al imaamu بوبو سي نياري حديث يوي ني لي دا فاي وني ني لب لو wane ne lépp lu jóge ci yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lu ñu war a taqaloo la lu ñu war a taqoog moom la di ko jëf a sori la diko bàyyi bu fekkene ay tere la لولو إمام الشافعي مكوخ لولو لدقنا كوش حديث المقدام ابن معدي كريم بكو دفي لن تي اي وخنا نكو اك لن تي احاديث يو جوغي سي صلى الله عليه واله وسلم يي حجه بوكاي واخ دغ دغ موي سنه صلى الله عليه واله وسلم موي تكتال waaw borom xam-xam yi lan la ñu dëppoo ñoom ñu ne daal borom xam-xam yi dëppoo nañu ñoom ñëpp ci ne sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xujja la ñoom ñëpp considéré nañ ko comme benn masdar wala sax al masdaru thani بعد كتاب الله سبحانه وتعالى kenn génnul ci boobu wax nag lu dul koo xam ne kii waxam kenn du ko considéré benn waaye boo xam ne bii laa yoo taddu bi kalaami ñooñu rek ñoo ñoo ci génn waaye képp koo xam ne kii aalim la muctabar d' accord nga ne sunna moom moom mooy taaw moom mooy seexu alquranul karim mooy seexu alquranul karim li ciy firnde mooy aay bi ma la waxoon sànq mooy wa man yushaqiq rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin gayra sabili lmuminin boobu sabilul muminin mooy saxaaba yi li ñu nekkoon taabiuuna yi ak ña topp ci ñoom loola mooy diine leneen lu ñëw ginnaaw gi boo ko tuddee diine yow yaa ko ko tuddee waaye nekkul diine yow yaa ko tudde diine waaye nekkul diine ijma boobu amoon ci ñoom nga xamee ne ñoom lu ñu doon def dañ ciy dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ijma boobu mooy ijma mu'tabar beneen ijma bu ñëw bu bokk wuteeg boobu du ijma wu dara moo tax saxaaba yi radwanallahi taala alayhi alihi wa sallam ñoom dañu amoon ijma lépp ci yonent bi wax wala mu jëf ko dañ ko daan jëfe mun nañ ci joxe ay misaal al oustaz sànq joxe na ay misaal yoo xam ne day dugg ci sama sama waxtaan waaye damay bàyyi yooyu dugg ci beneen ma jox la benn misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne li albuxaari génne na ko mos naa takk jaaru xaalis raawi bi dafa chàkk mu ne wala wurus wala xaalis waaye wurus boo toppee xadis yi yëpp yi ñëw xadis yi ñëw ci ci wax boobu ak li ci borom xam-xam yi wax yépp nga xam ne raawi bi moo def chak waaye zahab la woon or la woon bi mu ko solee saxaaba yëpp dem wër ci jaaru or takk ko fas bi daf ci bindoon muhammadun rasulullah bi mu gisee ñoom ñëpp ñu takk jaaru or mu jël jaaru moom tekki ko ñoom ñëpp ñu tekki seen jaaru loolu lu muy firi li muy firi ne ñoom ki ñu tegoon bët di ko xool mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu def rek def nañ ko lu mu bàyyi ci saasi lañ koy bàyyi du xaar ba dem seen kër de fi ko defee ci saasi ñoom it foofu la seen bas kon ijma boobu amoon ci saxaaba yi mun nga ci joxe beneen misaal ci xadiisul bara ibnu azibin radiallahu an mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam xam nga nekk na di julli fukki weer ak juróom benn wala juróom ñaar féete fële ci baytul maqdis yàlla wàcce aaye ne ko léegi mun nga féete ci kaaba bi booy julli am na ñu ne ci julli takkusaan la woon la aaye wàcc ñu julli takkusaan ñu féete baytul maqdis am na ci mbooloo bi ku julli woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu paree julli muy dem mu romb ñeneen ñuy julli ñoom ña nga féete fële parce que yëgaguñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam aaya wàcc na ci moom mu ne yéen ah nun de sànq bi ñuy julli ñu ngi féete baytul maqdis ñu ne lu taxaw yonent bi alayhi salatu wasalaam am na aaya bu wàcc ci moom di ko digal loolu nekkuñu sax di xalaat nañu taxaw woon di julli rek lañuy tourner rek nii rek jublu baytul maqdis continuer seen julli kon kaaba ba xam nga loolu loolu koy roy fa la loolu ijma boobu amoon nañ ko ñoom saxaaba yi lépp lu yonent bi def wala mu wax ko rek ci saasi si ñoom lañ koy def duñu xaar amul xaar ñoom parce que xam nañu ne loolu mooy njëriñ dëgg dëgg njëriñ mooy loolu yow ki ñu yónni ci yow yàlla nee na kii laa yónni ci yow xool ko nga roy ko yow boo bëggee texee fii ak fa nga jëm wallahi ci moom rek ngay xool lu mu def nga def ko ak yeneen ahadith yoo xam ne yi dafay wane ne dëpp amoon na ci saxaaba yi ci wàllu ne yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ay waxam xujja la ay jëfam xujja la yu ci bëri day guddal wax bi ndax ñaari misaal yooyu rek doy na Omar ibn Abdul Aziz xam ngeen ko yéen ñëpp mooy xalifa bu baax boobu dafa doon wax ne inna ras alqada ittibaau ma fi kitaabillahi thumma alqadaau bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax naan boppi gàtte maanaam li gën ci atte mooy li nekk ci téere yàlla bi subhanahu wa taala boo ci jógee li nekk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اسحاق بن راهوي خمون غنكو يني جان حديث دا فاي من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر إسحاق بن راهوي ماك واخ مونغوكو خول الاحكام في اصل الاحكام كيف كوا خم نك خبر نيو نشيو بوير نيون تبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كوا أما عن عن تبايكو عن بايكو نيو نبوا ما يطول نيو كونسيدر لكم كويت كون لين لا لو لين لا شيء برام خم خمي نيو جسون حجية السنة بودي ما شيء المذاهب الأربعة ينع خم نيو نيو بخم نجن بوتي boy tàmbali da ngay dem ci abu hanifa abu hanifa an-nu'man da fa don wax nan iyyakum wal qawl fi diin ta'ala bir ra'y wa alaykum bi ittiba'i sunnah faman kharaja anha dhal faman kharaja anha dhal abu hanifa an-nu'man da fa don wax nan moytu len di wax ci diine ji ci seni xalaati bop te ngeen topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax képp ku génn sunna rek yaa ngi égaré wu yaa ngi égaré wu yaa ngi réer de te yëgoo ko boo demee ci al imam malik radiallahu anhu dafa doon wax naan ittabiu ma anzala allahu min rabbikum wa ma jaa min nabiyikum wa in lam tafhamu almaana wa in lam tafhamu almaana fasallimu li ulamaikum wala tujadiluhum فإن الجدال في الدين من بقايا من بقايا النفاق. الإمام مالك آه، آه، رحمة الله عليه إمام دار الهجرة لفرن وخنان توبل لي الله سبحانه وتعالى جوجي موم اك لب لن سن يونت بي اندل صلى الله عليه واله وسلم دونت دغولن معنا بي دونت دغولن معنا بي سوين كو دغلو دلو لن سني بروم خم خم te bu leen leen weddi bu leen daggasanteeg ñoom ndaxte daggasante ci xam-xam wala daggasante ci diine ndesitu naafiq la min baqaaya nifaq al imaamu shafii mohamad ibn idris dafa doon wax moom it yasqutu kullu cheyin muxaalifin amra annabiyi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam ولا يقحم معه رأي ولا يقاس فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الشافعي دفوخنا لب لدو لو يونت بي اندريك لولا تي سوف لا فيتي لب لو نيو وروك يونت بي لوم واخ لولا تي سوف لاي فيتي في صف kenn du fi sof dara ndax dafa mat ba pare jarul nga ci sof dara do ci nat dara it neena ndax te yalla dog layu kep kuy lay ci bimu yonne yónnee bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dog layu kep kuy wax ci bimu yonne yonne yónnee bi sallallahu alayhi jox ko diine bu mat jox ko tamit mu mun wax lu leer lo xamne li bo ci gis njëriñ li loolu almadahibul arbaa yëpp loolu la ñuy yaxal boo ñëwee nag ci raison nga xam ne xel la xel tamit da koy liggéeyal boo ko jëfandikoo mu jox la lu leer yenn saa waaw naka la yàlla di yónnee yonent yi ne yónnee naa ay yonent ci yéen jox naa leen ay téere mais nag bu leen leen déglu ci li ñuy wax seen wax du tegtalukaay seen wax du delluwaay seen wax bu leen ci sukkandiku yoon naa leen dama leen jox téere rek c'est-à-dire dichotomie boobu nan la mën a amee ci àql ndax àql mën na nangu loolu yónni na ay yont maa leen tànn préparer leen fa ma leen war a préparer jox leen risaala risaala bi ànd ak téere ñu indi téere yi nga ne mais bu leen déglu li leen wax de yéen xool leen téere bi rek ngeen jëm ak seen xel lu ngeen dégg ci téere bi rek mu nekk mu nekk mu nekk diine bu boobaa est-ce que imagine ngeen imagine ngeen jaxasoo bi am ak pucc puccaxoo bi war a am bu fekkoon ne mbir yi noonu la tëdde kon sax kon jarul sax muy yónni ay yonent comme que noonu la tëddee ku nekk rek yàlla mun na la ilham benn wax mbir wala mu yàlla tëwu ko moom mu wàcc ku nekk benn téere rek jox la téere bi ku nekk nga jëng jël téere bi nga koy jàngal sa bopp yàlla loolu tëwu ko waaye li mu tànn moom yàlla subhanahu wa taala ci xam-xamam gu jiitu ne il faut mu am ku mu yónni ku gën a dégg waxam nit ñi ñëw di leen ko wax moo tax mu tànn al ambiya war rasul ndax ñëpp mënuñu nekk ay ambiya ak ay rusul mu tànn haulaay al ambiya wa haulaay rusul mu préparé leen nam ko bëgg ba pare wàcc ci ñoom téere mu wax leen nag téere yi leeral leen ko seen xeet yi diine ji leeral leen ko seen xeet yi suñu amee lu ñu jaar seen diggante nañu ñëw ci yéen ngeen atte leen noonu lañ fi nekk ak ñun ba risaala bi jeex ñu comprendre risaala bi ñoom ñu dem bàyyi ñoo risaala bi moo xam alquran bi la moo xam suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu wàll wala sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon quranan sunnatan ijmaan aqlan xujjiyatu sunna loolu ñaari kuy duñ ci mbëkkante lu dul koo xam ne kii xaru tàpp rek ak kuy ñëw fii ne la dafay mbëkkante xaru tàpp nag ak kuy fu ñu mbëkkante rek dina am problème bu am xar bu amul béjjën laa bëgg a wax ak xar bu am béjjën bu ñu mbëkkante dina am problème ku am problème dina am ku am problème de ku gaañu de loolu nag moo xew léegi oustaz wax na ko léegi ñi nga xamee ne dañuy dugg ci sew-sew yu mel nii duñ nga wax mukk comme ni mu wax sànq bu fekkee ne ci wàllam la ci wàllu xadis duñu duñ la wax mukk ci càll lay xadis yi ndax foofu sew-sew yi dafa dafa dafa doy waar parce que da ngay dugg ci dëgg fii samimi ilmi al ilal waaye dañuy ñëw rek ci maanaa bi ñoom maanaa bi àndul ak suñu xel waaw yow yow yow soxlawuñu mu ànd ak sa xel yow sa xel soxlawuñu mu ànd ak sa xel parce que yow doo yonent kenn yónnu la si ñun ñun dañuy soxla kay ndax yonent bi moo wax rek ndax wér na ne wax ah hadith bi àndul ak sama xel ay weñ naka lay nek ñukoy ki ay golo golo naka lay njaalo masala imam bukhari mu ne golo hadith may amr ibn maymun yu demee noonu ci xel rek ci sanad bi ci ci mat na xadis bi rek waye bo demee ci cyallala bi duñu ñu duggal yow ci ilmul ilal ndax te cyallalay ñom fofu mom il faut nga nek ma sha allah niki oustad nga mëna dugg fofu ndax fofu ñëpp mënuñ fa dugg te ñëpp ñi mawuñ faa dugg it waaw dafa am ay borom ñu ko moom waaw foofa dafa am ay boroom ñu ko moom kon euh, lii mooy liñ ma sasoon ci euh, waxtaan wu solo yi ngir ma indi ko xam naa ne nag demewul nu mu war a demee lool ndax yaram bi xawul neex lu noonu fan yi am na loo xam ne lii gaaroon nañu waaye yàlla musal nañu ko subhaanahu wa taala ba ñu ñot ñotti ba ñëw euh, euh, bi ñu ñëw sax kayit bi maa ngi ko fàtte woon kër ga dama waxaat xale mu dem jëliwaat ko ndax euh, yëpp bokk ci jaxasoo yaram bi rek ñu xam ne daal na mooy al masdaru thani li tashria képp ku ko sànni ginnaaw sànni nga ginnaaw diine kon nañu jàpp sunna ñun ñëpp di ko tegtaloo xam ne noonu woo ñuy may doole di ñaan yàlla nag subhanahu wa taala ñi nga xamee ne ñoom ñoo taxawee mbir mi mooy majmuatul ali wal asxaab yàlla dooleel leen yàlla barkeel seen i yëngu ak seen i dal yëpp Mouhamadul Bachir laa ci jiital moom nga xam ne xale bu sawar la wax dëgg yàlla li ci bëri ci moom la aju an ko ñaan yàlla góom ay ko gudd fan yàlla bëril ay moromam moom ak ñëpp ñu mu ci àndal nag ci majmua bi ci wàllu technique beeg ci wàllu ñi ko yor ñëpp al maghribi hada alladi raaytuhu anifan huna ah nga xam ne moom ku doy moom it ku ci liggéey liggéey bu am solo la barakallahu fikum jamian kon lii daal moo doon dars bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon li njëkk si ab jullit mu war a jàng mooy mu jàng li ñu tuddee at tawxid muy wéetal borom bi subhanahu wa taala gis nga pas-pas dafa cher yonente bi alayhi salatu wasalam ne amul lenn lu ñuy peese ak laa ilaha illa allah lu dul ne dina ko daaneel lolu moy katanu tawhid ana xamoni ni day yak jëf yàlla neena na bi la in ashrakta la yahbatan amalukum wallahi muhammad bo bokkaale sa jëf yak waaw ci deug deug deug bu ngeen xalaatee jëfandikoo seeni xel ndax war ngeena a nangu ne am yàlla keneen ñeneen ñu fi nek ne mom yow da buñ la ko laaje khul la ashad nel man la ashad